Welma boutique la bière des VIP mbégte mi tàmbaleeti na à partir du 27 décembre jàpp 27 janvier Welma boutique nekkati na en promo moins de 30 40 50 ba 70 pour cent ci ay njëgam loolu laal Welma wàññil la ci dara costume de classe Welma la fekk baax lacoste yu raar chemise yi nag ay chaussures basket chaussures classiques accessoires yi nag du fa jeex montre parfum ceinture ak ay yeneeni bagages accessoires sportifs yi moom moom ma nga fa ne gàññi fees fa dell ay maillot blouson crampon kon gars yi yéexati ñàkk la de daw leen gaaw Sacré kër 3 ci ginnaaw boulangerie jaune bi ci koñu Mbaye jee Faye Welma boutique mi ngi foofu wala ngeen woo ñu sax ci suñu numéro de téléphone yi 77 555 21 67 wala sax nga woo ñu ci beneen numéro bii di 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste ayca eh, salaamaaleykum mbokk Sénégal salaamaaleykum mbokk internet Lutte TV ginnaaw bi ñu leen nuyoo rek di leen ziar tey nag ñu ngi fii foog naa fii mooy couragement Malika couragement Malika seet si nag benn grand am na ñu ko ràññee am na ñu ko ràññeewul waaye yaakaar naa ne ñu ko ràññee ñëpp si làmb lañ ko ràññee ah muy ànd ak général Malika ñu naan ko grand Mbodj nekk waayam nekk doom ndeyam ñu yàgg ànd lool lool lool nag grand Mbodj ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw Bokor maa lay doole ziar di la jox bu baax a baax di rafetlu teewaay bi ak déplacement ah. di nuyu borom site bi di ko jox waayam di ko ñaanal yàlla yit lii mu sumb yàlla na dem ba doon ay télé ndax ñi ngi rafetlu liggéey bi liggéey bi naagis na trop xam nga kon ñi ngi koy ñaanal yàlla fii mu teg tànkam daal yàlla na gën a yokk mais bu mu wàññeeku waaw maa lay bëggee bu baax a baax. sa digganteeg làmb balaa maa ñëw si général lu ko dugal ci làmb bëgg làmb. waaw sama digganteeg làmb ko du dara foowee làmb rek juddoo ci dëkku làmb. Mhm. màggee ci dëkku làmb. Mhm. ndax fi ma juddoo muy tey Bambey dama faa jóge ñëw mbuur mbuur gi ma nekkoon fi ma nekkoon làmb moo fay dund muy golf ko ñu Bombardier bii di bëre fa laa nekkoon jaata bi muy àndal sama rakk la jaata bu Bombardier suma rakk la jaata bu mbuur suma rakk la yaayam ak suma papa ñoo bokk ndey ak baay comprendre suma rakk la quoi foofu laa bëggee làmb foofu laa dundee làmb commencé après sax ba ma fay dem fekk na maa ngi commencé di bëre après ci laa ñëwaatee Malika continuer di bëri lamb moom sama virus la nekk waaw daal mën na ne ancien gloire la. <laughs> ancien gloire la bëri naa xam nga maire bi moo bëggul sax mais bu bëggoon dëgg carrément yaakaar naa fi ñuy tudd champion yi mën nañ ma faa tudd quoi ndax def naa ci ay ay def naa ci daal ay jéego tuuti quoi waaw. def si ay jéego bàyyi waaye yàlla na ko la ci làmb ba tey rek ngay ànd ak général. waaw Zé moom. Mhm. du ma taay di wax ci moom suma rakk la. Mhm. ndax boo déggee ma ne suma rakk la. yàlla dañoo boole muy suma rakk ju ma déggal bëgg làmb ma xam ne làmb ci deretam la ne nit nag bu jëlee boppam jox la ne la dama laa dénk suma bopp mag suma lépp loo xam ne lu may jariñ ci làmb la ak lu may avancé loo ci làmb dénk naa la sama bopp kooku da koy téye quoi suma rakk la waaw. sa rakk la est-ce que ànd ak mbër yomb na ànd ak mbër neexul de. non ànd ak mbër neexul metti na. Mhm. mettiwut. sans mhm. départ ci nga ànd ak mbër mu bëgg a doon mbër. xam nga doon mbër yombul. Mhm. bëgg a doon mbër. Mhm. yombul quoi waaw. mën ngaa nekk mbër nii nag mais bëgg doon mbër moo yombul mais boo bëggee doon mbër. Mhm. ki nga àndal bëgg mbër. mbër la bëgg mbër. waxuma bëggantu mbër nii de mbër. seen ànd dina neex quoi. seen ànd dina neex. waaw dina neex gis nañ tamit mu jóge si ndam lu am solo digganteem ak Bour mu gagné par décision est loolu moo leen gënaloon. non pour ma wax la lenn moom ci Bour Sine. yàlla seere na ne bi ñuy ñëw ci làmb ji. ak li ñu liggéey. xalaatuñu woon sax ay maxi niil sa boo xoolee làmb ji ni mu demee Boursin ku ko xam ndax wax sang mbaaxu yàqul wax sang mbaaxu waaye yàqul sang mbaax dara Boursin champion la man wax naa ko suma rakk général mhm. xaj na sax boo gisee ni mu bëree mhm. conseil yi moo bari ci boppam ku xool see xam ne màgg na ci bëree màgg na ci conseil mhm. mais ni mu daan doxee ñëw ba bëre làmb ji dañoo wax ak moom ci côté boobu yedd ko ci làmb hmm. waxtaan ak moom ci làmb xamal ko ne Bour Sine mi ngay bëreel champion la ndaanaan la hmm. sonangul nañ ko ko hmm. ndax def na ay performance sam ci làmb ku daan Fils de Balla mi la wër ndomba bëreeg yow ba yàlla may ko ci ndam kon yaakaar naa kooku champion la sa Bour Sine mbër ma su koo yab de yaakaar naa lii ko see def mbërëng ko koy door a def ci làmb taxaw ci kawam bëre ci kawam duma ko mu xeex nga lépp boo xoolee nga jël ko ci biir làmb ji Bour Sine ñi ngi ko koy door a def. kon champion ku lu fadil la. mais nag làmb moo demee noonu. Hmm. da ngay ñëw waaj ak say mbokk ñëw ak fekk fa leneen. wax dëgg yàlla mais ndaanaan la. Zé fan la jëm. ah Zé làmb rek comme ni ma koy waxee rek. Hmm. fi mu toll nii làmb toll na foo xam ne kenn waratut a bañ général bu Malika. bu dee làmb rek. Hmm. xaj na nag làmb bi bëri dóor rek làmb bi bëri simple lañ dañ naan bokkul mais lépp benn la. li am solo mooy defali preuve. sa def nay preuve. ñetti at ñu génn kenn werantewul ne ay preuve moom ku ko fi ëpp bariwul. dëgg la drapeau chef de l'État nga tegle ko ñaata yoon. Mhm. kon yaakaar naa kooku war nañ ko mën a bàyyi xel. Mhm. nga jóge ci combat bu mel nii ñi mu bëree ndool ñu di moromam ñëpp ñu ngi ci kaw. di mobiliser pourquoi ça ay magam mënuñu koo may sens. dëgg la. bàyyi ma nañu jël. Mhm. ma ñoon. waaw amul combat. waaw ñun newuñu fi di xaar. at day gën a yàgg rek bàyyi ma ñoon wala Moussa amuñu komba Moussa Ndoye benn amul combat. waaw ah, amagul combat amul combat. Hmm. wala sos mii ngay gis nii combat la. sos sos. ñoom ñëpp bu leen général bañul kenn mënu ko cee bañ bu dee dëgg rek. ay grand frère am lañ nag ñoo ko jiitu ci kaw. da ngeen di ñaan chance. non dañuy ñaan chance. Hmm. sos suñu mag la. Hmm. suñu grand la grand bu jàndal la. dañ koy ñaan chance war na mën a bëreeg général bu Malika. Baye Madior. suñu mag la. jantal grand la. Hmm. moom boo xoolee làmbam sax nga xam ne bokkut ak maanaam li nit ñi. waaw waaw waaw moom vraiment day waaw waaw day may booy hmm. moom làmb ji maanaam hmm. adi xaaru la fi. sa moom xam na ne làmb boo ci tollee def ko. def ko comme li di wax rek. moom la bàyyi ma ñoon def ñu koy ñaan sens suñ grand frère la. na ko may sens. Moussa Ndoye moom du Moussa Ndoye moom du ñeexu ñebe moom. non yaakaar naa ñun moom fi mu toll nii. bu dee dëgg nga bëgg a bu ñu la waxee dëgg rek bokkar sa yàlla rek tax. làmb amuñu ku ñuy sóoraale ci làmb ci xeex ba ci bëre ba ci doole ji. amoo leen ko amoo leen ko leen calculer. non amul Malick Niang mii sax nara a tekki ngembam nañ ñu ko jox. Malick Niang Malick Niang benn. Malick Niang kay daa mel ni tekki na moom. parce que ah, mais laaj na ba sonn sa ñun bëgg nañ koo jàppale pour mu des si làmb. waaw ah loolu lañ mën a wax jàpp ñun ñaata yoon la ko Zé la wax nañ ko ko jox nañ ko ko jox kom nee na amul kum xeexal amul kum bëreel. waaw ñu koy topp kon yaakaar naa ñu fi kenn ah. sa ragal ko dong moo tax gars yi bëreewuñoo moom waaw loolu nag bokk na ci moom waaw ragal ko dong la Pape Matar dañu ngi déggante si suba ñoom moom daa mel ni moom Gris la bëgg Pape Matar kan ci Pape Matar xam nga côté Gris général mhm. dafa am lu ko xaw a tënk tuuti mhm. lu ci ne mhm. G champion la dafa nekk ci làmb Gris 2 champion la dafa nekk ci làmb mais tey man côté boobu li tax sama wax munu ci sori cent pour cent mooy Lac xam nga lagros bu faas moo Gris 2 lan lañ ay mag ak rakk ay seex lañ parce que ay gaañ lañ rek. Ah? waaw ay gaañ na tey boo xoolee lagros Rose. Hmm. yaayu général bu Malika. Hmm. da doon bëggee Lac di jël Lac di wax général bu Malika comme lagros Rose. wëlbatiku Lac man suma xarit la man Lac suma xarit la. suma xarit mooy seq nañ jàmm suma nit la. Hmm. comprendre Gris 2 sama nit la ndax Lac Rose a tax ma xam Gris suma nit la ñoom ñaar ñëpp sumay nit lañ. mais nag làmb day toll foo xam ne. li ñuy wax rek. bu leen làmb boole da leen di boole ji xam nga mais nag hmm. xaj na ñoom mën nañ am loolu xalaat ko hmm. man général laa faral suma mooy suma mbër mooy suma lépp hmm. mais ñee su may nawle lañ su may xarit lañ nit lañ daal su may nit lañ bu ma sañoon gënalu la bu ma sañoon dañuy xool leneen ci kanam quoi ndax see am na ñu mën a bëreel ñu nekk ci kanam ñu gën a pare Jordan Jordan bu ñëwee baax na comme amul combat defuñu fi lu visé deful de ñi ngay lim nii ñëpp. Mm-hmm. defuñ fi lu fi see defut. Mm-hmm. gaa suñuy grand frère lañ. les respecté beaucoup. Mm-hmm. sayit nit bu la jiitoo si mu nekk moo lay won ni ngay tëddee suñuy mag lañ jox nañ leen cër bi respecté nañ leen mais c'est sûr que sorte defuñu fi lu fi général deful. waaw. actualité la moo ñu wax si tuuti rek. Ada Fass Zarko. bëre combat bu neex combat bi andi coow combat bu amoon tension. vraiment jaar nañ combat bi. jour si tamit ñaari mbër yi macha allah mobiliser nañ. feesal nañ stade bi. Euh, neexal nañ ambiance nañ tuus nañ tuusi neex. bëri tamit ba amateur yi am si satisfaction. waaw boor set euh, CNG dagg seen xaalis. Hmm. ba pare aj leen ku si nekk ñu aj la un an. Hmm. sa gis-gis en tant que amateur en tant que acteur làmb xam nga ñun ay amateur lañ. Hmm. avant làmb dañoo nangu ne amateur dañ nangu ne dañuy dund làmb. gis nga làmb nañ xool li koy defar bookor. bookor lii defarul làmb day yàq làmb. waaw aj mbër moom man moom d'accord. pour man dama ne pour man bookor. aj mbër ak dagg ko yenn xaalis bilaay walaay defarul làmb da koy yàq làmb li koy defar mooy hmm. ñu xoolaat sécurité biir stade bi jël ay sécurité ay civil ñuy dugg ci biir nit ñi taxaw hmm. bu làmb jeexee hmm. ku yàq ñu jël la yóbbu la kaso tëj la ñaari weer ñetti weer bu subaa doo keneen du ko def mais man gëw mhm. mbër mi di bëre. Mhm. mbër mi ñu koy supporter mhm. kenn ku ci nekk ak nañ la yare kenn ku ci nekk ak fa nga jóge kenn ku ci nekk ak na nga mel. kenn ku ci nekk ak la la indi ci làmb ji moom xam nga lu ko intéressé. daan daan bégal ay supporter am. kon yow mi ñëw di def naka sa du noonu. mbër mi daanu talul dem di yàq sees wala muy dammi ba. loolu rek la ñu war di xool mënoo am naqar boole koog di yàq. kon ñiy yàq. bokkuñ ci làmb defaruñ làmb man mm. dama jàpp ne boo bëggee sa mbër mm. waroo yàq loo mer mer waroo yàq barke borom Tuubaa bii paa sax dañoo ne euh, seen temps de préparation moo yàgg ne ne maanaam liñ liñ dañ dañ yàgg si géew bi te bëriwul maanaam préparation mystique bi la ñu ne moo yàgg waaw loolu mën naa leen ko nungul ci côté boobu mm-hmm. ndax mystique bi bis bi moo ni toll mm-hmm. bis bi man da solo laa wax nee naa bis bi moo toll noonu bis bi moo ni toll mm-hmm. xam nga bis ku ko waaj ak say mbokk bis bu mel nii ñu ga ñoom ñaar ñëpp kenn ku si ne du ne du ma du ma hmm. def lu dul yóbbu ndam faas kii ne ko du ma def lu dul yóbbu ndam Grand Yoff bis boobu mënul yomb bookar hmm. kon nag mystique bi faaw mu toll foofu hmm. mais li may wax rek CNG nañ xam ne ñoo suñuy kilifa sa ñoom la fi yàlla teg mais nañ gën a oyofal affaire yi làmb li koy defar du ajaate làmb li koy defar du dagg xaalisu mbër xam nga lan mooy defar làmb communication ak jël magi làmb yi ci la ñuy jël magu làmb yi boole leen ci CNG di leen déglu dafa bokk ci liy defar làmb mhm. magu làmb yi bu ñu dajeeg écurie yi dinañ toog ak ñoom waxtaan ak ñoom mhm. dinañ xam ne lii dañ ko war a defar mais boo jëlee magi làmb yëpp ignoré leen génne leen ci làmb ji boole woo leen ci làmb ji ah considéré woo leen dara mhm. ah yéen waa CNC kese seen décision kese décision bi man ñi ma gis ñëpp CNC xaaj bi booy xool ñi ci dund làmb ma daan leen gis ñuy bëree wala ñuy takk ngeem wala ñuy arbitre làmb bariwul ay intellectuel rek laa ci gis intellectuel nag day waxe intellectuel làmb day toll foo xam ne esprit ngay waxee sans intellectuel ak xelaat mm-hmm. li koy avancé loo mm-hmm. na waa CNG yaatal ko dugal ci magi làmb yi yaatal ko wala ñoo defati ay décision ñu gën a waxtaan ak magu làmb yi mm-hmm. gaa ànduñu ci yàq ànduñu ci saboote mais nag pour ñuy gën a defar nañuy gën di waxtaan di gën di waxtaan ak mbëri sayt affecture di am comme ni carton jaune amee ci football carton rouge am nañ la woo waxtaan ak yow ne la lii mooy sa dernier chance demal wax ak say supporter lii boo ko defaatee boo ñëwaatee boo ko fi defaatee ci làmb dañ lay aj kooku bu demee vidéo ñu def ko comme ni site mu wax koy supporter am ñu déggee ko noonu ëllëg bu daanoo ci biir làmb supporter yi duñ sànni man loolu laa gis quoi mais nii ñuy doxale moom jàpp ma ne day jëmale làmb kanam quoi sa làmb dafa nekk ci crise sa làmb dafa nekk ci loo xam ne maanaam dërëb bukki la mhm. ñëpp koy tudd ñëpp a koy tudd koy tudd benn nit bu dee ci làmb mhm. dañ koy yóbbu fu ne mhm. mais xoolal football ñi ciy dee sa du dem fen kenn du ko yëg xoolal beneen wàllu beneen côté beneen côté ñi ciy dee mhm. sa du dañ koy wax ñetti fan après mu jeex mhm. yàlla moo bind rey moo bind dund mhm. kenn jógul pour rey nit pour man ñiy def loolu nag man li ma leen di wax rek nañ delloo seen xel xam ne àdduna yar dafa am solo yar teggin bu jógee ci nit rek dara desut ndaw it bu bëggee gudd fan day yaru di jaamu yàlla fonk ay waajuram fonk ñi ko mag mais man li ma gis nii ci xale léegi daf ma jaaxal quoi ñun ñëpp ay xale la. jamono bi léegi waaw jamono bi léegi itam yàqu na de. voilà dañoo war a changer comportement bi bëri na. non léegi li ma la wax rek. Mhm. yar bi moo manqué. bëgg bandi bandi papa yi talatuñ léegi toog ci biir kër yi pour éduquer doom yi papa yi bu ñu xëyee ñu ngi dawi dépasse. Mhm. xale yi ku ci xëy yaa moom sa bopp. Mhm. yar bi day jafe mais nit ku xam ne fi nga bokk boo xamee fi nga bokk. doo jaar fooy déraillé quoi bañ lay xeeb. am na solo na booy xoolaat seen comportement bu ñuy gunge mbër di ñëwee stade. ñuy indi yar ndax lii ñu teg Ada Fass teg ko Zarko lii du bëgg mbër boo bëggee sa mbër doo ko indi loo xam dañ koy tegi daan un an bu ñu ko ajee fa Ada Fass Zarko mhm. mii nekkoon ci yoonam ñu aj ko un an dagg un million ba pare dagg un million ak ci xaalisam mooy li ma la wax mhm. xam nga lii defar làmb mooy nañuy gunge mbër mi sol tiset yu rafet jënd billet yu cher mhm. jàppale ko ñëw stade tàcc ko yëngale ko mu yëngal ci suuf daan ngeen ñibbi mu daanu ngeen félicité ko ne ko dama liggéeyuwaat xool li manqué ndax ñi nga daan gënoo leen. xool li manqué mu yokk ko waaw mu yokk mais pas ñëw rek ñu daan mbër nga damm séesé ñu aj ko dagg ko xaalis bu toll noonu un million cinq cent bu ñu ko daggee ay face un million ñu dagg ko Sarko mm-hmm. fan la jëm. Mm-hmm. Bokar lii defarul làmb lii day décroiser loo mbër yëpp mm-hmm. tey ñi tukki ñëpp États-Unis delsiwuñu ah ñi tukki États-Unis ñëpp delsiwuñu ñi tukki France yëpp delsiwuñu lu ko waral lii rek lañ xam ne teral seen i waajur ñoom ñooy daj coono yi mois daj ay coono dugg saal yéeg din ba tooy jeex na dem si àll bi ñëw ñu dëgg sa xaalis tam neexul li ma xam nga làmb ku ci dugg mhm. bu la waxee dëgg xam nga lu mu ci bëgg teraanga mhm. am na ñoo xam dañ koo bëgg bëgg bëgg bëgg mu nekk seen deret mhm. mais bëgg gi bu buñ demee ba ci biir li leen ci gën a dugal mooy bëgg a dimbali seen i nit wala dimbali seen i waajur wala am kër gu rafet wala am oto bu rafet dëgg la comprendre mais leneen dugalu leen ci làmb kon nag buñ ci duggee pour loolu sa mënatuñ cee jot. dañ koy bàyyi nan lay demee dañuy tukki. ku ci tukki doo ñëwaat loolu la rek. Modou Lo coow li bëri na nag digganteem ak Ama Balde. Mhm. digganteem ak Boy Niang sax nee nañ taxaw na ba moom jot na avance sur cachet. Mhm. Boy côté am la des ak côté négociation yi. Ah. sa gis-gis en tant que acteur làmb non man moom pour ma wax la lenn. Mhm. gis nga euh, làmb bookar. làmb dafa doy waar. sa gis nga euh, li yàqal mbër yu bëri xam nga mooy lan. kii suma xarit la kii suma xarit la te yàq la am day tardeel mbër kii suma xarit la kii suma xarit la wala duma def lii sa kii defu ko loolu day yàq làmb gars yi nañ xool làmb ku ci am sa kër bàyyi nga ko jëme kenn ku su nekk xoolal lu la jàlle mais nay rafet nay rafet quoi rafet gi mooy mm-hmm. li ngay communique nit ñi di ko dégg nay rafet sa moroomi mbër yi jox leen cër ñu jox la cër mm-hmm. ndax day wees mm-hmm. bu jeexee da ngeen a war a nekkaat dooni mag ëllëg ngeen war a tuddantey dooma mais na rafet daal ak euh, kii ni ñu koy waxati. Mm-hmm. Mm-hmm. Modou Lo. Mm-hmm. lamb ju neex la. lamb ju neex la boo bëggee dégg-dëgg. boo ñaar dafa defi preuve am. dëgg la nit nag bu defee preuve dañ ko ay preuve dañ ko koy nungul bookor. boo ñaar dafa bëre ak Balla Gaye 2 daan Balla Gaye 2 Balla Gaye 2 du moo daan Modou Lo. ah mais boo ñaar roi des arènes lay rêvé. mbër yi yëpp ngay gis ñi ñoom ñëpp ñi nekk ci làmb yëpp roi des arènes lañ bëgg a doon. mais pourquoi ça lan moo ko téye bëreeg Modou Lo. Amadou dafa blessé. Mhm. Amadou dafa yoroon avance su Modou Lo. dëgg la bi mu yoree avance su Modou mu blessé. Mhm. ah Modou Lo blessé. Mhm. Amaat munu ko xaar. daa dem jëlee avance giri Gris Bordeaux pour bëree Gris Bordeaux léegi kii moom bëri na ak Balla Gaye daan Balla Gaye mais pourquoi ça mënut a jël avance su avance su Modou Lo waaye bu ñu naxante waaye bu ñu ah, jaayante est-ce que loolu du non réeroo waru cee mën a am bu dee dëgg la bu dee seen ànd bi dëgg la. man li ma gëm bu dee ànd bi dëgg la réeroo waru cee mën a am. kon kon moo kon kon boo ñaa yoru roi ak Ama yor li ma la wax. Mhm. gis nga euh, yàlla lu mu bind ci nit ki. kenn mënu ci dara. bu yàlla nee booy ñaa day jël roi bi. Mhm. toog ci. Mhm. kenn mënu ci dara bu yàlla nee booy ñaa day bëreeg Modou Lo. jóge fa Modou loo yor roi am. kenn mënu ci dara buñ ne Ama Baldé mooy jóge foofa doog a ñëw jël Modou Lo jël roi bi. kenn mënu ci dara nañ ko rafetal rek mais li làmb joxe logique mooy. Boy Niang daan na Balla Gaye mhm. amul combat nee nañ amateur yi làmb ñun ñi ñëpp daan na Modou Lo ñaari yoon déglul ma wax la rek mhm. amateuru làmb yi mhm. ñun ñi ñëpp bëgg nañ làmb ci ñun ay amateur lañ làmb ju neex lañ bëgg comprendre Modou Lo Balla Gaye ñaata yoon la ko daan du deux fois Eumeu Sène ñaata yoon la ko daan du deux fois ah Eumeu Sène ñaata yoon la daan Balla Gaye du deux fois mais booy ñaa di rakki kan Eumeu Sène rakki Eumeu ah, ku daan sama ko bëgg ngaa daan bëgg nga koo daan dëgg la wala déet dëgg la Balla Gaye dañoo daan rakkam mu ñëw xam boo ñaay dafa war a bëri jéeg Modou Lo daan ko loolu la bëgg. kon yow daal Modou Lo. boo lamb ji daa war a taxaw lamb amateur la validé nga ko. lamb ji daa war a taxaw lamb amateur la. Mm-hmm. amaa ba man de li ma jàpp. booy ñaa mm-hmm. bu estafam xaw ma nag mais daal yaakaar naa bu dee am na estaf. Mm. sa waajuram it bu dee mm-hmm. comme ni mu wax dafa ñëw pour dimbali waajuram ci làmb mm-hmm. ak fi Père Dégol jaar ci làmb mm-hmm. wax dëgg yàlla man du ma gis ay millions di ko fa bàyyi li mu mën a fay ko ci Modou Lo di mënu ko fay ko ci benn mbër jamono ji non déggoo li ma wax man damaa toog di ci waxtaan ak nit ne làmb ji bu seddee kase bi mu ci waroon am sax dootu ko ci am sa xale la day liggéey sa yéene nañ ko lu ne nag ndax dafa wane njàmbaar loolu waru ko xaar nañ tam jëlee avance bi bëreeg moom amaa bëreeg moom loolu du ci dara lu mu am jël barke borom Touba Modou Lo ndaanaan la ñoom ñëw ñu ñëpp mën na leen a dégg ñoom ñëpp nañ jël avance mën na leen a dékku mais ñoom it hmm. ay ndaanaan kullu fadili lañ mëtloo mii hmm. jël avance su ñaari booy hmm. mën na bëreeg ñoom ñaar ñëpp xaw ma nag la cay xew yàllaa ko xam waaw que le maire gagne que le maire gagne waaw am na solo maa ngi lay bëgge maa lay doole bëgge Bokar looy tàggatoo waaw di tàggatoo rek di waxaat rek di nuyuwaat samay soppe di la nuyu xam nga di nuyu suma rak suma xarit muy général bu Malika xam nga di ko bëggee xam nga di ko jox wàcc waayam bu baax baax di ko wax ne da si nekk rek ñun ñi ngi ci Bokar. Mhm. général li topp ci ginnaawam sax gisagoo ko. Mhm. barke borom Touba. kul sëfooru camion transporteur yi nekk ci Ndakaaru. Mhm. ak àll beeg bi ñëpp ñu ngi ci ginnaaw général bu Malika mooy suñu mbër. ñun mooy suñu mbër. nëbbuñu ko. làquñu ko. moom mooy suñu mbër général bu Malika ak i rakkam armée bu benn baraak bil désert ñun Kër Masaar Malika moo ñu ñor. dëgg la feneen ñoruñu. Kër Massar Malika moo ñu ñor mhm. suñuy rakk la ñu am ñoom champion yi ñoom Boy Sey ñoom saa bokkal mhm. ñoom xam nga général bu Malika mhm. Bulldozer ñoom Unca booy Malika yëpp ah booy Malika ñun fii ñu ñor dëkk bi moo ñu ñor champion yooyu ñor général nag dama bëgg promoteur yi na ñëw seet si ko Diop la président def tous les camions maa ni nii ci ginnaawam ak gaa yëpp sama dool la si benn affaire mhm. ku ko njëkk a seet si moom mhm. di nga jaay loo ma sa jaay de général léegi fanamaa ren la xam nga lool wala xamoo ko waali seekang ci ginnaawam ah. xam nga man ku ma xam-xam maak waali muy suma doomu ndey di suma xarit mhm. man maa ko jël ba yóbbu ko ba ci waali ne ko waali mun naa ma ne ko dénk naa la suma rak muy général Malika yow sama digganteeg yow samedi ak dimanche la dama laa bëgg sa daw ma ci dara ragalu ma ci dara. Hmm. nee naa la biir géej boo ko wootee woon ñu fekk la fa labay bari rek. Hmm. général bu Malika mi ngi ci ginnaaw magam. Hmm. muy faramaaren bi. promoteur yi nañ ñëw seet si ko. Ah. barke borom Touba ñu jaay luñ mas a jaay yow xam nga ne yow Bokar bu ñëwee dañuy wax rek. xoolee saat bi keroog ni ko général ah, def. moom keroog moom mobilisé na. Ah, macha allah xoolal ni ko nim mu ko def. keroog mobilisé na sa ma wax la leen. lamb jii di ñëwaat promoteur bu njëkk a ñëw ci ngay mas a gis ay camions yëpp ay nit ba fees dell ñëwee saat sama oto yëpp ay génn. <laughs> sama oto yi ma yàlla dénk. waaw yëpp ay génn ak ñeneen ak ñeneen sa xale yi. Mhm. maa seen kilifa bu ma leen na oto yëpp tàkk day tàkk ci kàttanu yàlla maa ngi lay bëggee waaw ñu ngi lay doolee bëggee mhm. xam nga di la jox sa wàccuwaay baax di am kontaante ak mbégte mhm. di leen ñaanal yàlla sit bi yàlla na ko yàlla yóbbu ci kaw a kaw a kaw li ngeen ci yaakaar lépp yàlla ngeen ko gis bokkar liggéey bi rafet na trop gis nañ li ngay daj ci làmb sa làmb fayeegu la dara gis nañ coono yi ngay daj ci làmb lépp rafet na xeeboo kenn sa lépp ci dëgg nga koy teg ak yoon kon ñu ngi lay ñaanal yàlla lépp loo ci mon ren yàlla nga mën déwén lu ko ëpp bu baax ak kontaan ah, di nuyu askanu làmb wépp jaayan jëf Welma boutique la bière des VIP mbégte mi tàmbaleeti na à partir du 27 décembre jàpp 27 janvier Welma boutique nekkati na en promo moins de 30 40 50 ba 70 pour cent ci ay njëgam loolu laal Welma wàññil la ci dara costume de classe Welma la fekk baax lacoste yu raar chemise yi nag ay chaussures basket chaussures classiques accessoires yi nag du fa jeex montre parfum ceinture ak ay yeneeni bagages accessoires sportifs moom ma nga fa ne gàññi fees fa dell ay maillot blouson crampon kon gars yi ñàkk la de daw leen gaaw Sacré kër 3 ci ginnaaw boulangerie jaune bi ci koñu Mbaye Dieye Faye Welma boutique mi ngi foofu wala ngeen woo ñu sax ci suñu numéro de téléphone yi 77 555 21 67 wala sax nga woo ñu ci beneen numéro bii di 77 370 43 43 Welma boutique le prix s'oublie la qualité reste